climatique aussi ak pollution de la mer le rejet n'est-ce pas des toxiques yu nga xam ne day joge ci industrie yi yooyu yëpp dafay affecter géej gi donc facteurs yooyu yëpp donc soo ko combiner aussi ak par rapport ak les zones aménagées yi nga xam ne donc euh, war nañ ko def parce que il faut des zones aménagées il faut développer l'aquaculture parce que gis nañ ne ne donc loolu alternative la mais aire marine protégée yi nag aire marine protégée yi aussi donc euh, gis nañ ne ne ñooñu dañ ko war a développer soo xoolee bëreegul trop parce que loolu day permettre mu conserver les espèces yoo xam ne donc si zone aire marine boobu lañ nekk mais loolu donc dafay dafay baax si aussi géej gi parce que ñoom suñ leen protéger suñ demee ba xaw a màgg rek après dañ leen di dañuy dem dugg si waax yi ni leen ni mun leen napp xam nga donc fan yi gis nañ ne ne donc euh, par rapport surtout ak yabooy bi Euh, jën côté boobu am na mais nag. c'est pas am na temps yi waaw mais nag loolu c'est pas du. <laughs> loolu du par rapport ak comme ñu koy waxee. Hmm. ne donc euh, euh, suppression licence de pêche yi moo tax jën am parce que pour l'instant. man de gis naa fi benn vidéo benn. waaye daal génne fi ay ay ay yaax yu rafet. waaw ay coof sax ne ni léegi jën yi ñëw nañu parce que. supprimer nañu licence moom ay image yu yàgg la. yenn yi moom image yi. loolu mënta nekk waaye image yu yàgg la parce que quand même pour vous dire que ne. ne jën yi du cela cela pas lié. <laughs> donc parce que aussi on n'a pas supprimé. les licences de pêche. parce que accord bu ñu wax parce que lu souvent lan la ñuy wax bateau bateau bateau étranger ñu ñooy yàq géej gi te accord bu Union européenne ak Sénégal le 18 novembre lay jeex donc fu mu ne nii on a publié seulement les listes des navires léegi nag pour vous diir que ne aussi. période bi c'est favorable donc pour que jën am parce que jën dafa am ay période yoo xam ne surtout période tàngoor bi ñuy dem nii jën dafay am si yenn zones yi donc moo tax par exemple instant yi nga gis yaboy bi donc am te loolu c'est une bonne chose parce que soo xoolee yaboy bi kees bi doon na doon jar trente mille mais léegi je pense que dix-huit mille wala quinze mille donc c' bon pour la population parce que population bi xeetu. kees bi jaroon na fi trois mille. ah effectivement effectivement deux mille cent. cinq cent sax ñu may la yabal. c'est ça effectivement waaw mais xam nga ak jën bi aussi euh, nu ñu agressé donc euh, géej gi xam nga ak aussi pêche euh, juvénile bu ñuy def loolu yëpp dafay contribuer aussi véritablement mu tax géej gi am jën facteurs yi bëri na trop du par rapport ak boto yi am nañ si wàll. xam nga donc pêcheur artisanat euh, am nañ si wàll nit ñi si boppam am nañ si wàll parce que dañuy contribuer à la polition de la mer yooyu yëpp aussi vraiment solution bi mooy fexe def ce qu'on appelle donc conseil présidentiel sur la pêche parce que nguur bi fi jógee diggé woon na ko ba ñun au niveau ministériel travaillé woon nañ sur les TDR def les documents mais malheureusement mënuñ ko tenir parce que conseil boobu lu muy permettre dina réunir tous les acteurs ñu ñëw càmbar ku nekk donc ñu wax les difficultés affaire bi nag dafay laaj aussi sursaut national parce que quand il faut que ñu dem ba noppal géej gi parce que actuellement au niveau de la pêche industrielle la ñuy noppal géej gi pour un mois au niveau de la pêche artisanale daanaka kenn du noppal géej gi. koo xamee ni yow amoo jën. <laughs> voilà ca ngay dund. waaw yu ci bëri capitaine wu bateau yu wala gaal yi. Mm. mujj ñu doon ay euh, capitaine wu gaalu yu looco pour mën a génn. def émigration. Mm-hmm. mais lu ko waral gis nga même jën bu ndaw bi ngay wax ni moom la ñuy napp. mais ko amul jën bu mag doo gis jën bu ndaw di ko jël. dañ koy jël. parce que duñu am mm-hmm. amuñu choix. jën yu mag yi nee nañu. Eh, bateau étranger yi jël nañ lépp te man ba léegi moi je reste convaincu que bateau yi ñu naan battant pavillon sénégalais te boo fa duggee fekk fa ay chinois donc nga fay fekk wala ay ñu mel noonu nga ne ñii ay sénégalais lañ mhm. loolu tamit dafay du du day tee xel mhm. mais da dangay wax jën mais yéet bi sax ña ngi koy génne di ko exporté effectivement symbiome bii mhm. ña ngi koy jël bu bees bi boo xamee ni kenn euh, def si xorom euh, ñu koy yóbbu di ko di ko exporté. Mm-hmm. fan yi passé jàpp nañ fay nit ñoo xam ne euh, anguille lañ doon lañ doon yóbbu. Mm-hmm. ndax dafa cher ñu ne la kilo anguille mën na jar daanaka ay six cent mille ak sept cent mille francs mm-hmm. ñu koy jël di ko yóbbu. ba bitim réew sax ñu arrêté lu bari. mais est-ce que tamit les armateurs sénégalais. mais amuñu ci part de responsabilité. tey armateur boo dégg ngeen baal ma. mais ñoom ñëpp ay Richard lañu ay milliardaires lañu. ñu ñu ràññee ci ay armateur am na si ñoo xamee ne ñu ngi sax ci sport bi. Euh, fédération soo xoolee Ibrahima par rapport ak eh, eh, exportation yi <laughs> eh, chiffre d'affaires bi moo tax parce que même mool bi jàpp jën bu noble bi maanaam iñaane na ko lekk wala mu jaaye ko fii parce que quand même chiffre d'affaires bi la dañ ci am xaalis ñoom il préfère suñ jàppee jaay ko donc borom usines yi te borom usines yi soo leen ko jaayee ñoom exportation la ñuy def mhm. waaw loolu loolu aussi donc mun nañ demee ba faxe aussi ba suñu jàppee yenn jën noble yi ñu am benn partie boo xam ne donc dañ koy mettre à la consommation soo xoolee ñun am na benn jamono en 2022 bañ defoon grève dans le secteur primaire ba ñu bloqué exportation yi mais moment boobu noonu jën amoon na coof donc da nga doon xool ne ne sax donc euh, doon na doon jar sax deux mille sur le marché contrairement nga ak léegi nga xam ne coof donc day dem ba 10 mille 11 mille 13 000 14 000 kilos bi donc pour vous dire que ñooñu chiffre d'affaires mooy tax ñu jàppee rek duñ sax calcul luñ ko sax débarquer xam nga pour euh, donc la pêche artisanale wala au niveau de la population mais dañuy préférer jaay ko usines yi ñu exporte exporter ko donc yooyu yëpp aussi vraiment à travers le conseil présidentiel dinañu càmbar loolu yëpp pour trouver des solutions parce que quand même il il est temps que ñu fexe suñu géej gi amaat jën soo xoolee donc euh, la sous-région donc ñooñu peut dañoo adopté benn politique n'est-ce pas donc des gestion durable au niveau de la pêche ba nga xam ne seen géej ba léegi mu ngi mu ngi am jën ñun aussi pourquoi pas ne pas adopter parce que le Sénégal c'est c'est c'est presque 718 kilomètres de côte c'était euh, euh, le kii la plus la la plus poissonneuse mais léegi donc euh, géej gi amatul jën il faut que ñëpp aussi donc def benn sursaut national ñu toog càmbar xoolaat donc euh, au niveau de la pêche artisanale malgré que ça va être difficile mais il faut aller vers lu ñuy wax repos biologique donc de deux à trois mois xam nga dina métti trop mais quand même mu métti donc euh, après ñëpp gisaat si seen bopp pour une durabilité la gestion durable de la ressource parce que aussi souveraineté alimentaire yu nouvelle autorité di wax si dans euh, euh l'agriculture dans dans le grand A donc mooy pêche élevage agriculture souveraineté alimentaire boobu noonu donc euh, fu mu ne nii secteur primaire rek moo ñu ko mun a permettre si wàllum mbéy bi. si ñu développé yenn yi parce que par exemple. Mhm. Euh, sànq yaa ngi wax ci seen euh, kuréel culture da ci bokk. effectivement mais man damay fàttaliku maître Ablaye Wade waxoon na fi ne même oto yu yàqu yi ñuy bàyyi ci tali nañ ko def immersion. pour que mu mën a doon benn benn euh, fu fu mën a denc ay euh, euh, mm-hmm. jën ñu mën fa jureeg yooyu mm-hmm. mu doon seen benn milieu naturel mm-hmm. ci biir ndox mi déggatuñ ci dara teg nañ fi ay nit ay bassin de rétention pas pour retenir taw bi rek mais pour def ci aquaculture ak pisciculture gisatuñu ko wala déggatuñu ko alors que am na ay réew yoo xamee ni Arouna Dia tey Burkina Faso amul géej te pourtant mu ngi fay lijjanti euh, jën. effectivement siiw fa loolu lan moo tax ba Sénégal aquaculture pisciculture boobu. Mm. mais mënuñu ko gën a ci yaa ngi wax repos biologique pendant trois mois. mais repos day fekk nga am alternative. tey bu doon am na doole ci aquaculture. ak mm-hmm. pisciculture bi day tax ba mm-hmm. peut pêcheur bi nga xamee ni sumbañu la ne wala yaraax wala yooyu mhm. day jàpp ni mhm. mën na bañ a dem géej mhm. waaye dina am jën ci benn bassin boo xamee ni peut-être moom ak euh, ay communauté ñoom ñoo ko état bi defal na leen ko wala ñoom ñoo ko defal seen bopp ba nga xamee ni repos boobu pour trois mois dina mën a nekk waaye reposer trois mois boo xamee ni doo am jën ñu ne Sénégal ceebu jën patrimoine euh, historique <laughs> effectivement ah, euh, UNESCO sax consacré ko waaye jën ci boppam gisutoo ko wax euh, mooy épave de bateau yi ngay wax auto yi et cetera bon parfois dañ koy def mais daal maanaam doyul soo xoolee aussi parfois immersion ndaa yi ndaa yi ñuy def donc euh, immersion yooyu yëpp dafay permettre pour euh, vraiment jën bi mun see nekk reproduire c'est des alternatives yoo xam ne vraiment dañ ko góor a gën a mun a dooleel xam nga. daa yàgg Abdoulaye waaw voilà c'est ça en tout cas autorité yu bees yi vraiment ñoom donc nee nañu vraiment dina ñu fexe càmbaraat secteur bi. donc euh, transparence bu si joorin de la pêche Fatou docteur Fatou Diouf di si kii bon ñun dañ koy saluer en tant que parti syndical parce que transparence fu mu am yi ñun vraiment donc loolu c'est tout à fait normal dañ si ànd xam nga ñun aussi vraiment nee nañ ko tàllal nañ ko suñu loxo par rapport vraiment ak euh, surtout dialogue bu franc bu sincère bu war a am suñu diggante parce que aussi ñun au-delà des syndicalistes que nous sommes nga xam ne ñun duñu seulement des syndicats de revendication, mais des syndicalistes de contribution. Parce que aussi, au-delà même de notre posture syndicale, nous sommes des agents, des techniciens du ministère. xam ne war na doxal ministère, bi ay yàgg nañ ko def donc dans le cadre syndical. D'ailleurs, on va faire une journée, donc le samedi, xam ne donc dañuy chambar pêche bi, am ay kàngam yoo xam ne dañuy ñëw pour que ñu toog waxtaan véritablement par rapport ak luy doxal napp ji yooyu am na solo pour vous dire que syndicalisme aussi du casse rek malgré que on a des revendication yoo xam ne donc euh, véritablement donc euh, su ngeen ma ko mayee donc mun naa si mun naa si revendication yi nga xam ne euh, dafay tourner autour du protocole d'accord bi nga xam ne dans le cadre du secteur primaire xaatimoon nañ ko état depuis depuis depuis deux mille vingt deux mais six mois lañ ñu joxoon pour la mise en place des fonds communs du secteur primaire. ñu tegoon ci commission au niveau de la fonction publique mais véritablement pour que ñu am rencontre rek il a il fallait que donc ñu taper sur la table génn ci presse bi xam nga pour que ñu woote te alors que ñoom ñoo joxe woon délai de six mois pour ñu mettre en place ces fonds communs du secteur on est à deux ans régime boobu sax bon nekkatu fi régime bi nekk fi en place le premier mai président Bassirou Diomaye fay donc nee na dégg na jàngat euh, jo maanaam secteur primaire lu muy jooy te ñoom nee nañ foofu lañ bugg a basé pour développer réew mi te nag véritablement avant ngay pour développer réew basé wu secteur primaire il faut aussi les la ressource humaine les les agent yi nga xam ne ñoom ñoo lay accompagner si loolu ñu mu leen dooleel les niches identifié nañ ko def nañ ay documents parce que c'est extra budgétaire loolu donc du loo xam ne ci gafaka état lay jóge du si budget état lay jógee maanaam ñun ñooy xool suñuy ressources yu ñuy générer comme nu mu amee donc finance ay douane ay donc impôt nga xam ne ñooñu dañuy collecter ay ressource moyennement ñu jox leen pour centage mais képp koo xam ne day dugal ressource si gafaka réew mi yow au retour war nga am benn pour pourcentage boo xam ne war nañ la ko mën a jox comme nu mu xewee si santé si commerce et cetera mais ñun on peut pas comprendre depuis presque deux ans loo xam ne six mois la waroon am. véritablement donc ba léegi sottul ah, am nañ si yaakaar parce que l'actuel ministre des finances mooy Cheikh baax moom véritablement jàppale woon nañ si si bu baax a baax par rapport ak élaboration fonds commun boobu nga xam ne donc ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon càmbar moom yàlla def na ne direct direct programmation budgétaire la ne woon mu ngi léegi ministre te wax dëgg fa la moom moo si gën a am solo pour loolu mun a sotti am nañu yaakaar nag suñu valider suñu niche yi donc je pense que dans les prochains jours ñun dinañu adresser benn correspondance au ministre de la fonction publique pour wax ko ne na ñu woote réunion de commission parce que cinq mois ngi nii ñu ngi toog xaar donc wootewuñu réunion de commission te alors que ñoom ñoo wax ne ne suñ ñëwee ils vont respecter tous les protocoles d'accord parce que état continuité la te loolu du du loo xam ne encore une fois si budget état lay jóge si ñun lay jógee suñuy suñuy fonds yi nga xam ne dañ koy générer ñu état am si ñun ñu am si donc si véritablement donc euh, adressé nañ correspondance ñu toog oote ñu réunion de commission parce que quand même temps de grace d'accord mun nañ ko jox nouveau régime bi mais quand lii dafa nekk loo xam ne la du nouvelle revendication xam nga xëy na peut-être li ngay revendiquer xëy na dafay générer donc ay ay ressources financières xëy na état mun na wax ne maa ngi doog a ñëw munuma ko et cetera mais lii aajowul c'est pas une nouvelle revendication te les ressources fu ñu jógee ñun identifier nañ ko xam nga donc war nañu woote ñu toog véritablement ñu poursuivre les travaux sinon nous serons obligés suñ ko deful ñu paralyser le secteur. <laughs> ah waaw xamoon naa ne ay waxum paralyser moom leen ko.